salaam salaam welcome bienvenue dal leen ak jàmm mbokku internet yu seen football tv di wax képp ku bees ci chaîne bi abonné cliquer ci cloche moo lay permettre vidéo bu ñu dugal nga mën ko seetaan à temps bu fàttee tamit aimer vidéo bi c'est très important tey ne dañu ñëw wax ci mercato des lions le ko nag dem fële sa championnat bu mag ba Angleterre Premier League beneen taskatu xibaar bi ñuy wax The Athletic moo ñuy xamal ne lu néew moo des Edouard Mendy signé Chelsea équipe bu ren nag ngi xaar 25 millions d'euros pour bàyyi si fàttali rek équipe bu Chelsea bu Lampard si mercato bile dépensé na 200 millions d'euros journal bi yemu foofu dem na ba wax ni ci biir semaine bi dossier bile mën na clos officiel Edouard Mendy signé Chelsea. ñu des Angleterre ba tey dem si équipe bu Pep Guardiola Manchester City bi ñuy wax ne jamono bi trouvé na accord ak Kalidou Koulibaly pour mu signé Manchester City bu ñu sukkandikoo si benn taskatu xibaar bu ñuy wax Di Marzio nekk fële ci Italie. journal bi la mu ngi ñuy xamal ni Manchester City pare nañoo joxe cent quinze millions yi xamante ne président bu Napoli Donatella moom lay xaar donte ñoo ngi wax ne lu néew moo des mu signé Manchester City dossier bi officiel. taskatu xibaar bi yemul foofu moo ngi ñuy xamal ne PSG ak seen directeur sportif Leonardo bàyyigul dossier bi ba tey mu ngi bëgg a jënd suñu gaynde bi. li ko waral nag bokk na ci seen défenseur capitaine Thiago Silva dafa libre ñu bàyyi ko mu dem Chelsea. te ñu ko bëgg remplacer ak défenseur bu classe mondiale waral jamono bi dinañ def seen kéemtalaay kàttan pour mën a am du Koulibaly li leer ba leer mooy que dossier bi waa City xam nañ ko te bëgg nañu balaa championnat bi Premier League di commencé Koulibaly signé. ñu dem fële sa Liga espagnol wax si Moussa Wagué mi nga xamante ne dafa def retour de prêt après ñu abale woon deuxième partie de saison bi Nice jamono bi mooy Barça. suñu gaynde bi nag am na ko ndax ay équipe yu mel ni Besiktas ñoo ngi ko ciblé pour jël ko après Fenerbahçe bëggoon jël Todibo ak moom journal yi nekk fële ca Turquie ñoo ngi ñuy xamal ne Besiktas ciblé nañ ko pour am ko. ñu des Turquie ba tey suñu gaynde bi Babacar Coman équipe am Sassuolo daf ko prêté Antalyaspor gaynde bi si ay kàddoom mu ngi ñuy xamal ne kontaan na trop teg si dafa signé Antalyaspor pour wane boppam. réussir ci club bi ñu koy ñaanal mu def saison bu complet am na potentiel bi te mën na dugal ñu dem fële si Belgique wax si Krépin Diatta mi nga xamante ne supporter yu Bruges xalaatuñu woon benn yoon ne saison bi mën na fa jóge bu ñu sukkandikoo si taskatu xibaar bu mag bi nekk fële ci Allemagne ñu koy wax Bild Hertha Berlin pare nañu pour jënd suñu gaynde bi journal bi moom ñuy xamal ne itam ne Watford bu Ismaila Sarr mi nekk championship ñoo ngi koy bàyyi xel semaine yi di ñëw lépp dina leer ba xam na waa Bruges dañ ko bëgg a jaay wala dañ koy téye seen équipe mbokk yi di leen jaajëfal bu baax a baax di xaar rek ngeen wax seen xaar ak seen gis-gis ci commentaire yi di leen sant di leen wax ba beneen sur Senfootball TV.